salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora waa vidéo bi ñuy defaat te dañ koy defaat rek waxtaan tuuti ci kaw Bougazelli bi di wax ni Sénégal doy na waar parce que li ci gën a doy war mooy euh, ku mel ni maître El Hadj Diouf sénégalais jox ko benn importance boo xamante ni mu bokk ci ñi nga xamante ni dañuy fooy république bi parce que être avocat. ça ne veut pas dire que da nga ci sa sa sa sa sa sa jikko wala nga sa fayda parce que na la leen lepp un ñew koy taxaw te mu koy du bis inshallah, da ngay taxaw ci suñu borom wax parce que dafa am lo kuy wala nga am nga euh, mi da ngeen ko mu war a nekk nit ki mën na def lu ko neex am na benn am na benn avocat bu ñuy wax maître El moom mën na dugg ci lii mën na dugg ci lii te nekk avocat boo doon nekk benn avocat international nag nekk koo xamante ni day taxaw nit ñi respecté ko mais mënoo aussi avocat boo xamante ni yàq yàq askan wi la gën a bokk ji mën ka defar askan wi parce que moom dañu ñun dañu nekk ay sénégalais la ñu dëkk ci Sénégal. dafa am loo xamante ni ku ciy jaay ci sa li ñu naan kuy jaay ci sa leer jëndee ko ak lëndëm parce que muy tôt taar tard di nga taxaw di ko li sëñ Abdoulaye doon wax ni ëllëg yomal xiyaam suñu borom dina wéet ak yow ba nga yaakaar ne yow dong la sàkk nee na mbindeef li ñuy bari bari ku ci dina wéet ak yow ba nga yaakaar ni yow rek la sàkk mais kon donc bul ñëw ci àdduna bi yaakaar ni yow am nga benn pouvoir bi parce que dafay wone loo xamante ni ni nguur gii ñu nekk nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite. bu fekkente ne ni développement bi ñu soxla ci ñii lañ koy jël benn dinañ yàq jikko yi ndax boo xoolee léegi xoolee ni jikko yi yàqoo maanaam respect bi ñu amoon lu mu ndawoon mu fonkoon ko Sénégal yàq nañ ko donc léegi magum jëmm wax lu ko neex tegg teg fële parce que ki nekk ci réew mi moom mooy jiite loolu mooy wax lii def lu ko neex wane doole donc mu mel ni valeur yi ñu amoon que ni nit ki da nga war a mën a jàng danga mën a def lii ba am léegi amatul. légui yow mën nga doole dal boko amé yow tout est permis mën nga def lula la neex ku melni ni El Hadj Diouf nag vraiment du un référence bo xamanteni war nañ ko mëna jox ben importance bi mu ñëw di tok di plaider ko xam leer na ko ni li muy du def du deug non seulement lolu ñun dañu bëgg ñu defar suñu deug dañ yor ay jeunesse bo xam dañu war au moins am fu ñuy référé wu mais dafa am ka yo xamanteni dafa doy war ci un député une personnalité de l'état ñu lay wax détournement te bi nga ñëwé loo ñu waxoon. maanaam état boo xamante ne da ngay ñëw jël ak ak yelleefu nit ñi da koy fonk mais Macky Sall ñëw mel ni loolu daf ko dafa dañu gis beneen Macky Sall mu jël Sénégal bëgg ko doxalee noo xamante ni et puis di créer yoo xamante ni dara lu ci taxaw amul. parce que ay ay zéro déchet yoo xamante ni yow tegoo benn matuwaay boo xamante ni nit ñi di nga leen yombalal loolu amul benn ay douche yoo xamante ni nit ki mën naa génn jàdd fenn mën a amul yow créer woo dara. léegi di expliquer di wax nii rek donc ñu war a nekk ci nguur boo xamante ni da ngay toog gis ñëw nekk ci état bi di wax ay wax yu doy waar li li ñuy jaay li ñuy tere nga gis ku bokk ci état bi daal nii am na ñu nekk ci gouvernement bi di ko jaay mais xam nga yooyu aussi ñu bëgg a nekk ci dëkk ñooñu war ñu jiite. bu doon kenn koo xamante ni sax opposition la nga ne peut-être que dafay opposé wu mais ku bokk ci ñoom mooy wax loolu nga xool réew mi ni muy doxee liñ fay tudd ci liir bon lii ah. xoolal li fay circuler ñu ko ñu naan douane arrêté na lii mais douane arrêté na lii mais sàcc nañu lii ci nga doy na waar ñu nekk ci réew moo xamante ni daal dafa mel ni léegi de lekkante la quoi borom doole daal ñoom ñooy dimbal ñoom ñoo ñu war a mën a ndett comme ça ñu néew ji doole yi ñu war a noppi te Sénégal yi aussi tamit euh, dafa am loo xamante ni aussi nit ki moo koy fajal boppam bu fekkee da nga bëgg toog sa ruq nag bëgg lépp di dox loolu amul fenn ci benn àdduna amu fa. tok rek lépp dox amul fenn gis nga ni ngeen croiser les bras baye Macky Sall aussi muy def lu ko neex di jay dole projet yu ko neex lay tek toogul xolul manam li nga xam mo war ci sénégalais yi mu dox ci bo démé ci ñaay bi xolal tay ji li gëna toy war xolal banlieue bi xolal projet yi nga xamante français yi ñoo ko lan nga gis lo xamante bo boole lañ ci banlieue bi waxuma la nag buñ nee balien bi géejawaay moom moom parce que frère am daf ko ci daf ci nekk donc moom foofu il faut mu am lu mu ko ñamal mais bu ñuy wax yeneen zone yi ay Pikine Caaroy ginnaaw raay yëmbal xoolal zone yooyu te ñooñu li ñuy daj popula xoolal loolu tey ji élection bi électorat bi am foofu bu ñu génne woon son loxo ci moom mais yéen a ko votel lan nga gis ci projet yi ñuy wax ni loo xam def nañ ko ci banlieue bi amul sóoraale wuñ ko parce que ñoom fekk nañ foo xam jàpp nañ ni peut-être que mooy gën a neex a defar mooy gën a rafet mooy gën a neex da foofu la ñuy investir seen xaalis quoi mais dafa mel ni banlieue bi moom ñooñu considéré wuñ leen te banlieue bi aussi tamit bu war a nekk nit ñoo xamante ni toujours dañuy tàccu di tëb waaw donc nag lu mel noonu dafay tax ñu tax taxaw seetlu xam ci réew mi nga bokk war projet yoo xamante ni dina toog tey ji lu jëm ci formation waroon nañ ko mën a teg foofu nga xamante ni xale yi dañ leen di jàngal technopole bi ni mu demee noonu waroon nañ fa am yoo xamante ne matuwaay yu ñu fay teg. ay centre yo xam day former suñu jeunesse bi nek foofu au moins di yor xoo xamanteni xalé xale yi dinañ fa mëna dem di ressourcer wu mais xoolal lan lañ tegal ci banlieue bi dara bu dul stade bi ñu fa def te stade bi lan la bu fekkoon ne sax stade bi chaque samedi mu tëgg état waron teg ben budget bo xamanteni wala mu insister ci nit ñi eh, entreprise étrangère ñuy financer promoteur yi parce que c'est des jeunes promoteurs yo xam ñoy génn seen xaalis diko def ci lutte bien vrai que ni du lutte bi sax moom la ñu war a favoriser mais dafa am loo xamante ni su ngeen demee ba teg ko ci dëkk bi ay centaine de personnes aussi nekk ci di altéru ba taxaw yéen bu ngeen leen récupérer rek lu ngeen leen di def ay nervi mais ñoom ñu war a conscient aussi tamit xam ne heure bi dafa waroon toll parce que ñi nga ciy dégg ci lutte bi ñu ci ñu ci tekki weesuwul ñi ci kaw ténor yooyu ngay Balla Gaye ak Modou Lo xeet yu man noonu waaw parce que tamit am na ci sax ci ñoom ñoo xamante ni euh, seen lancé di nga gis ñenn ñu ci ñu ciy tane ay Modou Lo surtout xarañ loo wala Balla Gaye ñu wax Balla ñi am ñeneen ñu nekk ci ñoom ñi nekk ci banlieue bi daal ñoom ñu ci ëpp moom ci nelaw bi ñoom ñooy nelaw waaw léegi nag lii raison la boo xamante ni ñoom waroon nañu gën a dénoncer loolu wane ni maanaam dañu bokk ci dëkk bi même yow boo nekkee sax mbër nekk ci banlieue bi yow fa ñi ñuy gën a favoriser du yow ngeen yépp ngeen war a conscient ci loolu war a mën a wax il est temps actuellement pour ngeen jóg toog ñu defaraat. Pikine defar Géejawaay ñu yeewu parce que xoolal li yàqu lépp Pikine lay Géejawaay caaro lay jógee di dem feneen ci yi ngay dégg yépp yu doy waar yépp ci côté boobu lay jóge parce que li ko waral mooy lan parce que nit bu fekkee dafa am lu ko war lu bari te amul mooy pour ñu xiir ko ci lu bari dafay yomb donc nag ñu war a mën a jógaat takkuwaat conscientiser sunu jeunesse bi parce que du nguur gi li ñu soxla moom moo ñu koy jox parce que nguur gi bu sañoon ñun dañuy nelaw. ñu jël ñu mel ne ay maître El Hadj Diouf yi nga xamante ni ñu waratuñu sax toog di leen boole ci dëkk bi parce que bokkuñu ci ñiy defar dëkk bi parce que tey mënoo ni nit ki defar lu la neex man je suis là di dugg ci ay détails yoo xamante ni en tant que avocat ay détails yu problème yu ndawal yu terre à terre te réew mi ñu soxla dëpp ñoo xamante ni dañuy conscientiser nit ñi xool suñu jeunesse bi nan la ñuy def ba former leen defar école yi ñu jàng dëggaat beneen Sénégal bu bees mais xoolal suñu jeunesse bi bu dul fecc bi bu dul way bi bu dul tëgg bi xeet yooyu dongul ci la ñuy ne ci ay détails suba bu ngoon ñu waroon di récupérer suñu jeunesse boobu former leen pour ëllëg wax ci suñu ressources naturelles yi Sénégal léegi ñu war ko tëggaat xam ne beneen Sénégal la war a doon mais président bi day toog rek dama bëgg dëkk te dëkk bi set dama bëgg lii lii dama bëgg lii lii te yow tegoo matuwaay bu tax dëkk bi set nu muy setee zone yi nga dëkk fi nga bëgg mu set ma ngay set bu fekkoon da nga jël bëgg jël Sénégal am na quartier yoo xam ba léegi nii waroon nañ ko lotissé tey ji am na yoo xamante ni ba léegi ñuy wax ni tey bu fa problème amoon tey ah, ambulance dina am problème fu muy jaar sapeur dina am problème fu muy jaar te ñu ngi nekk à zéro mètre de Dakar nga koy gis te dëkk nag aussi bu fekkee da ko bëgg a defar heure bi waroon na toll ñu naan Sénégal gi pavé nga ko quatre vingt dix pour cent wala quatre vingt dix neuf parce que c'est rien def sa def assainissement yi jëlaat dëkk tëgg ko def teg ko ci yoon. mais bu fekkente ne yow li nga fi jot a fekk sax yaa ngi koy yàq waxuma la defar mais kon fan la ñu jëm réew mi dañ koy jël au sérieux ku ci nekk yéen ñi nekk ci kaw ku ci ne sa doom yaa ngi koy teg ci condition yu rafet di ko yóbbu muy jàng ci école yoo xam bëgg nga ëllëg mu doon dara mais noonu ñu la denkee réew mi ëllëg noonu lañ lay laajee ni ñu leen dénkoon noo leen yore woon buñ la ko boo leen bu buñ la ko laajul fii dañ la koy laaj fële te fële mooy gën a garaaw waaw boo ko jaayee ku jaay ci sa sa sa leer nag jëndee lëndam moom après rëccu rek moo ciy am loo bànneexu fii loo ci gis ku ciy faatu ci faatu yu metti ngay faatu donc dafa am loo xam bu ñu la joxee askan nga bëgg leen noot mën nga leen a noot mais loo gis dafa am temps fam fu muy yem waaw di nga am foo xamante ni balaa ngay génn àdduna bi di nga xam ne lii nga dund lii ak lii la waaw loolu moom daf ci am solo Sénégalais yi ñu gën a yeewuwaat gis nga waa banlieue bi surtout ñu jóg gis nga projet yi nga xam ñu ngi koy wax kan nga dégg ci ñoom ku ci wax. te waroon au moins heure bi ñu fekk ñu banlieue bi ñu defaraat ko ah Sénégal dañu toll foo xam foofu ñu yàq pour defar foofu ñu yàq pour defar mais bu fekkente ne nag président lépp daf ko politiser te war a nekk ci dernier mandat waroon jël politique teg na leen ni Sénégal yi kat dama attend dama bëgg ñu liggéey dëkk bi ci nii ak nii ak nii lépp di lu muy yu sérieux mais non lépp nañ ko politiser rek moom mu ngi ci politique bi ba léegi comme ça. ba pare bëgg a nekk un jeune président boo xam waroon nekk exemple waaw man participation bu ndaw boobu rek laa ci bëggoon def te xam ne nag aussi képp kuy def sa ñaawteef ba ko ci sëriñ bi sëriñ bi fowul foluwul fowul foluwul képp ku ñu denk tamit nga bëgg a jàpp ni da nga ji yaakaar ni ci kaw xalaatu nit ñi ngay defee sëriñ bi moom ci jub lim fi def liggéey ba pare jël ni kaaleen ñu bokk loolu la def sëriñ Tuubaa du leneen waaw kenn ku ci ku bokk ci moom it fexe benn exemple bu rafet rek. parce que yoonu murit moom tabaxuñ fi lenn loo xamante ni alalu jàmbur moo ci dugg ay luwaay sa ak soxlawuñ loolu sëriñ bi li mu waxoon lépp dañ ciy toll juróomi soorool yi ba mu koy def mooy juróomi xalifaam yi gis nga ko juróomi xalifaam yi juróomi soorool yi Sëriñ Tuubaa léppam programme mel ko day mat ku ci jël alalu jàmbur rek bëgg a wéeru ci sëriñ bi yoon day dal sa kaw parce sëriñ bi moom fowul folowul Cheikh Ibra waxoon rek daa ngeen